te ñoo ngi indi ba léegi pour ñu ñi indi seen demande xam ni fàttewuñu bu ñu yàkkamti dinañ ci def suñu ka euh, lu ñu mën voilà day dañ def ay fausse rumeur xamuñ fu mu jógee mais dañ ma bañ ma ko wax sax dañ ma waxal du amul ma ne non nit ñi bu ñu jógee bu ñu bu ñu tas seen yaakaar yàlla moo tax ñuy def nañ def si kàttan yàlla yàlla jox ñu kàttan mën-mën ñu def li ñu war a def. nee nañ ma ñiy def santé fii lañ buntu bee la ñuy jaare donc yi ñu jot normalement ay tabaski la war a doon santé bi ça n'a rien à voir parce que comme li may wax toujours damay priorité bi mooy santé bi ñi am ñi def demande pour la santé. Des véhicules continuent de décharger les enveloppes. À la Fondation, on s'active pour répondre à toutes les sollicitations. Cette situation est causée par des individus mal intentionnés, se désole la présidente de la Fondation Servir le Sénégal.